am dammaka ceele yaa bi ma kutu ma fi xawsu diwaalim li xadimi rasuule fardi fardi amin يا دماء يا دماء يفرنغتن يا رجونيون يا دي dox la nabiya baada nabiin nu warga alburaaxil alburaaxil amiin المصطفى دي خير سماوان يا بيربوتي أحمد البلخيني سكن جاي خرب سكن خوصو سماوان samanin barakallah doomi Bamba mi ya fi nooyan te fastawul jaaji xeexul logo tàggul bal taawoo xeej naa koon ay noppil yow tam nag yafi fa jaajo waajo aji nga seexal yaa noo wa jox yàlla ci teggini ñii nga jox werd ñii nga ci baatin sonu ñu kak ñàkk ak bi nday saw yoon yornu yornu ta atum ak sesin la quartier ya boolo yor balak doom jëm daaru ngir fari dem si jiini e malaakay ba dari yalim ba fa toogoon am say ci nooni yow far ja puru ya ja baa def ci lislaam yaa xooti mbir doo cuuni banjala ñëpp naa tuub leen ni jaatu mal sasin lëmbari yene janjang yaa jaram lo mbaxaane ak buur siini ila kàngam doo jërno Birahim la kàngam di ñëw fi yow di la fooni gel war yaag lampa nga boole fa Jurbel waaye la xar saxal na kun fa yakooni ku fi daa weddi diine ne ko fa waylun mbaa mu dem yor fi suratil maawni ca atum jëm sësin la buur ab taraas seet si Jurbel ga yam yonaa la miini gurwaalo di sanj fa Tuuba ña daanoonu tey ñi aw yooni say taggay war di sunu liggéey ak i ngonnal yow la nuy soxla woo ba dun waxi waaje yow taaro sopp laa gën ci amuri bamba yow say karaama kenn mënu ko xam ndendoxum géej ne roowul ak teeni nu ñaan yow bamba wajula la toppoon yàlla na yooloo fi soorati watin noo ngi lay ñaan yow Bamba bis bu nu faatoo ko xamoon Seexu Bamba deefu ceene te malaaka yi mbugal ya buñ nu fa tiisal def nu weexi marke fil jëpp miini yow تبيض الذين وجوههم bu keroogee murid yi am am la ñu yéene yow ma na doon yaram nu kullu unaasin am nu tabal fi jannatil xuldini bu nu dekkee ba jëm siraat nangu nu wamat ndax nu far melax guy gëf ci xiini bu keroogee teral nu teeru nu ci ñam te nangul nuy jigéeni urul ni ngala Muusaa faral taxawlu te bul wey te nga far waxtu waawa ngay ngooni mbaa nga salli rabbi xayra salawaatin bi salaamin ala nabi maalali wasabi wa xadimi ak i doom yi nuy defar filini maalali wasabi wa ki doomam yi nuy defar filiini malaali wasaabi wa qadimi doomam ki doomam malaali wa sahbi wa qadimi ak doomam gi doomam yi nuy defar filini sayyiduna muhammad sayyiduna muhammad sayyiduna muhammad sayyiduna muhammad jikkoom yo ñoom mat melom yaa sell cër ya rafet mustafa al mujtaba al muxtaar yallaaw bur yàlla ne sakkuloon misloom ca gaaye weyoon te dutu sakkati misloom wóor na yàllaaw sayyiduna muhammad moom gatul guddul xeesul ñuulul yaram war a tax cëram yépp mat sëkk buy dox sut la yàllaaw sayyiduna muhammad moom daa deful am njool rëyul ni fatax duxul wagul setoxul sëgul fa yàllaaw sayyiduna muhammad moom lasul nujul gangul teyeel ya sewul kaloor ya papaayewul moo jënd yàlla يا جمال يا لام جمال يا لام يا لام جالو يا لام سينو نول مقدر انتو يجيك ak mu ñaay ba yàlla mu ñaay ba day saf melax guy gaf ci xiinu marax jaga ceel na lampi gaay si yallaaw jëmbay wendeelu bay safeeru badirin yadin ndoxum bañang maag palak baatam ga yallaaw sayyiduna muhammad yéenam yu sëq ya àndañ njañ di melax li xam yu ratax yaak leeraay ba yàllaaw muhammad boppam bumbur ngulu baak noppam yu rëy ya ca sargatam walbati lamsal fa yàllaaw sayyiduna muhammad nuuru bakkan gane fu nay safu na wurus sikim bu jekk ba ak faax waasam yeyallaaw diggante yaari wagam yaak xaatimam ba ñu taf ca diggu ndoddam ma saf tampe yallaaw sufeem yu jekk ya ak tenxam yu yaatu ya ak dojar yu tal yaak kalooram yooya yallaaw doxiin wu jekk wa ak ndaagam la temp ma woon doxiinu ramatu lay dox bir na yàllaaw siiduna muhammad waxiin wu dégg wa ak baatam bu neex ba mu yor lamiñ wu gàtt wa ak tellam ga yàllaaw siiduna muhammad moom leebul barul dotomul nasul darul tëxuloon baatam loxut sewul sëñ njul fayalaaw sayyiduna muhammad digam lu jekkale cey tamaam la muy yor luppam yu jekke ya ak peeram ya yallaaw sayyiduna muhammad loxoom yu jekke ya ak waaroom yu sew ya ca yaam koy lewi yàllaaw moo ne xuban ku nu yoog yonen di xeeñ ba ëllëg day saafo anteeka jàmmanteeka yàllaaw kum raay sa bopp nga ànd ak barke mën a jëm kum ɗifli ñaanal lo dooto joote yàllaaw sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañ ko fekke wadde yàlla bu fi kenn manqué aju ju fi waay andi yàlla na ko ko yàlla saafaraal noo ngi ñaanal cheikh mouhamadinil muntaqa sunu borom gën ko fee yàggal te wéral ko yéenem ci sëriñ tuuba yàlla na ko defee nim ko bëggee te nu ànd koog moom sëñ Cheikh naa noo ngi lay nuyu bu baax noo ngi lay siyaare bu baax di nuyu sa bokk yu baax yi nga dendal di la jaajëfal di la ndokkeel ñu nuyu it mboolem taalibi yëpp ak njaboot gi yëpp di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii nga xam ni bis gënu koo màgg ci lislaam te di ko defal sayyidina muhammad alayhi salaam at mu ne ñu ñëw fii ànd ko yow ba jeex ñu lay ñaanal yàlla yàlla guddal sa fan sunu boroom wéral la yàlla sàmm la te aar la si yéene ci sëñ Tuuba yàlla na nga ko yeggale ni nga ko bëggee dara ji sëñ Tuuba ànd kook njaboot gi yépp ak mbooleem njabootuk sëñ Mor geeg ñëpp ngeen ànd liggéeyub sëñ Tuuba bi ba lépp yegg barke borom Tuuba moo ngi jaar ci yow di nuyu waale mboolem kilifa fi teew yépp di leen siyaara bu baax di beral nuyu it sunu waajur yi sëñ Amar Dramé nga xam ne moom mooy borom bis bi donte dem na ba léegi ay njabootam ñoo fi toog di yeggale waaye moom mooy borom bis bi ñu ngi koy siyaare moom njabootam yëpp euh, ginnaaw loolu ñu ngi leen di fàttali bis boo xam ni dama koy defal soxna jaaratullahi ca dakaar bis bi mi ngi war a dajeeg le novembre bii di ñëw maa ngi koy defee si ses di ci delloo njukkal soxna jaara mu war a dajeeg bisu dimanche quinze lay tàmbali ba vingt deux heures maa ngi ci woo ñëpp nag koo xam ni rek euh, sëñ Tuubaa sa mbir maa ngi la ci woo ñëpp mbokki taalibe bi yëpp ndax ci occasion yi rek laa mën a jaar yëgal ko ñëpp fàttali ko ñëpp ku yaakaar ne daal euh, woowuma la yow laa jiital ñëpp laa woo maa ngi woo ñëpp di sàkku ñëpp teew ci dimanche lay doon la 3 novembre xam naa dinañ ko def ci télé bi ngir gën ko fàttali nit ñëpp jërë ngeen jëf jigéen ñu booyal naanu nga bay ba ndindee bu su jigéen ñu booyal naanu bay pendinde mam jigéen ñu ñu booyal naanu Furqaan yam jël na ndam li maam jaara ngoo ku fi nekk na jóg taxaw màggal maam jaara moo waral lépp bu kenn toog na jóg taxaw ca kaw màggal maam jaara jigéen ñu booyal naanu bay bandinde ku jóg màggal maam jaara bu déwénee yàlla na nga ñëwaat na ñëpp jóg taxaw ca kaw màggal maam jaara bàyyiwuma kenn nag na ñëpp jóg taxaw sa jigéen ñu booyal naanu bandinde ñi booyal naanu bay bandinde bu sa jigéen ñu booyal naanu ya mu taxaa nee na la xandinde ñu booyal naanu soxna jaara bandinde jigéen ñu booyal naanu ya mu taxaa nee na la xandinde ñu booyal naanu dafay mu dinde jigéen ñu mboyal naanu ya mu taxa la xaadi sa daaji cosaan la jigéen ñi boyal naanu jara mamam jara jigéen ñam booyal naa ñamon daga ne la xadim sadaaji jo salla jigéen booyal naa mam soxna jara ni cheikh muntaka mbake jigéen ñam booyal naa ñamon daga ne la xadim sadaaji jo salla jigéen ñi booyal naa jara mamam jara mam jara jigéen ñam booyal naa cheikh muntaka ne

jaara maam jaara maam jaara maam jaara maam jaara maa ngi ñaan nga ñëwaat déwén maa ngi ñaan ku jóg taxaw ca koo màggal maam jaara yàlla nga ñëwaat fii déwén ci doole sëñ jaara yàlla nga ñëwaat déwén jóg màggal mu feril keroog keroog Yusuf yaa maamam jaara faama xaama yaa ko waral sa doom ismaali jaara maam jaara am tey ay junni ko xaral sa doom am tey ay junne yaa ko waral sodom jom jom man jinne isa bali jaara fa mam jaara sa arful ilimi na la jikko yu rafet yeme jaara mam jaara arful ba gig yakal nga ba jeere la ilaha illallah yamba fujure yakal nga wa gig sabal yakal nga wa jeere hijal mambo baikan ke bayo la ilaha illallah la ilaha illallah jibbinindeel baykat nga bay nga bay bu sabaale bu sabaale jigéen ñi bayal na noon bay ba nindeel soxna si tëkkal leen ak jigéen soxna jaara dëkk yàlla man de. Muntaxa yàgg fi te Cheikh Muntaxa yàgg fi te. ku bëgg Cheikh Muntaxa yàgg fi yëkkati sa ñaari loxo ca kaw ñu màggal xalifa bi jar na ko. ku bëgg Sëñ Muntaxa yàgg fi yëkkati sa ñaari loxo ca kaw ñu màggal Sëñ Muntaxa. لك يرمني يكرفت سيقطها يكرفت لك ينبأ بل وفي يمين بلد yërmande bambay sama kagiroy saba saba mooy saba gën ma am tuuba ak dimbal ak yërmande yàgg fi te Seex Muntaxa yàgg fi te koy ñaan ba badin boo fi yàggee dana ba yërmande bind yërmande yërmande noo ngi la koy ba abadan yow yaay borom Tuuba da isa ndimbal ak yërmande yàgg fi teewel Cheikh Mountakha yàgg إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إلا الله لا إله إلا الله waaw waaw la la la la Baay Faal la ilaha illallah la لا إله إلا الله لا لا إلا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله rahmatan min allahi albadihi xayru min addunia wa ma fiha jamih adi cheikh ahmad alxadim radiallahu anhu wa nafaana barakatihi fi dunia wal axirati fi dunia wal axirati fi dunia wal axirati amin ya rabbal alamin addi sëñ Tuubaa